ñun waa communauté lébu euh, ngeen ngeen tànn euh, seen seen maire wala joxe ay consigne de vote loolu yëgoon nga ko wala ànd nga cim déet. loolu wax naa si ñaari place ne affaire njublang la waaw parce que Ablaye Makhtar ak âge ba mu am ak façon ba muy deme war na éviter coow di am si lebugi te bu coow amee si lébu gi bu jaraaf yi su ndoy rek bu fa nekkee rek ju ne jaraaf la du man <clears throat> nekkuma si tey nekkuma si suba dama jékki-jékki rek si dëkk bii ñu toog muy wakaam ma dégg ñu ne wakaam Ngor Yoof dañ war a seeti Nabi Guèye Nabi Guèye doomu góor gi seeni moo def jumaa jooju si géej gi ma toogaat ay fan dégguma dara mais muy xew bi gën a jigéen coow li commencé jóg nit nag wat gaal yëgoo lañ wax mais defuñu loolu dañu obligé woon taxaw du xaar bii nga xamante ne dem naa ñoo tànk parce que Wakaam nga Yoff mooy tànk ñu wax ne fii ab tànk fii la yem boo ko jéggiwaatee benn pas yaa ngi biir géej loolu moo tax fii tudd tànk fii tuddaat na was wi parce que ñetti dëkk la ñetti taxawukaay muy mu tudde was ñoom ba ñu defee seeni façon yooyu parce que xam loo pour nga xam ni nit ñu bëgg ak ni mu demee tout ça là foog nga nekk si nit ñu di dox xam la sénégalais mayul kenn boppam léegi bi yàlla defee ñu toog ñoom ba mañ ne ginnaaw suba la génne naa benn déclaration wane ne Sénégal kenn mënu ko xar ñaar bu ñuy wax tànk nañu wax tànk mais tànk bokku si ñëwul booba yëg naa ne waa Yoff réunion nañ ba ne kenn du dem man sax foogoon naa ne yeneen la ñuy wax waaye tànn maire tànn maire dafa jar a jóge Dakar ba fii di ko fi tànne mais dañ ko fa indi fii pour indi coow wakaam ak yàq deru wakaam c'est des gens yoo xam ne da ngay waaru mais nag si biir loolu am nay ay cadre emploi yu dëkk si wakaam ñoom ñoo jëri programme bi foofu pour indi ko fii barlu mën a am Ablaye Matar maanaam ñoom ay at nii di xeexaax man te mënuñu maa gañe mboon Ablaye Matar du moom moo may gañe du moom mooy ñàkkal fayda du mooy kii li may wax nag waxuma parce que jaraaf yi su demu fa ñeent ñetti jaraaf yi si wakaam <coughs> te du man yëpp kenn tegu fa tànk seulement daf di ñoom seen bopp dan ma waccer ak bii paa may leeral booy dem dëkk boo xamante ne dëkku dëkku coutume la yow nga nekk nitu coutume dafa loo ne Ablaye Matar war na mën a yónnee si ñun kenn ko si nekk ne jaraaf ñun kat dañ bëggoon ñëw fi nangam a nangam mais dañuy ñëw ne dañuy ziar si kan mooy ziar si ñun ñooy ziar gi doomu góor gi si mi woolu genre nu kenn ku am sa xam-xam téel ko sa bopp léegi man affaire bi bu loolu nekkee ñoom ñu ñëw wax seeni wax ba tànn fa ay maire ku leen ko sant ak nu mu war a demee man day jaraaf man d'accord ma ñun su sunu biir ñuy xeexoo rek waaye defe naa ne ñii nii il faut que ñuy xeex ñoom parce que duñu ay nit duñu ay nitu coutume dañu nekk si coutume pour am la nu am wala dañu nekk si coutume bi falaxe ni ñi benn lébu bu leen ko may rek ñàkk fula tax nga may leen man nag comme bëgguma bokk si ñàkk fula ñi moo tax ma ne loolu du fi euh, léegi man jaraaf li ma bëggoon a xam mooy euh, ñoom Euh, tànn googu ñu tànn seen maire ni ki Alioune Ndoye mi nga xam ne ci njaboot gi nag la bokk euh, li ma bëggoon a xam mooy est-ce que yéen mosoo leen ko waxtaane benn yoon euh, wala mosoo leen ko péncoo fenn yoon wala kenn woowu la ci benn yoon ne la ñun kat communauté Lébu dañoo bëgg ci élection locale yi ñu jëm diw ak diw nekk suñu candidat. ma sunu si wax kenn mosu si wax parce que amuñu sax ay jotaay nga lépp lu communauté Lébu di ànd moom Ablaye daf man ma oo ko laaj ko. wala ñu oo ko ñu ñu ootante suñ biir mais bu jëmee lu dul tànk fii nun nooy réunion ci suñu biir waxtaan ba arrêté suñu affaire teg Abdoulaye Diouf Sarr moom mu indi dafa waroon doon loo xamante ne ñun suñu bopp ñoo ko indi posé ko ko buñ ko tegalee moom ñu seet ko te tegal ko ko sax amu fi yoon parce que du Abdoulaye moo nu chefé ñun. ah lu tax xanaa du grand sëriñ grand bu dee grand sëriñ nag grand sëriñ lan la. grand sëriñ moo jiite képp kuy lébu di. waxuloo waxuloo lu taxaw de. ah kon moo taxaw. grand sëriñ du lébu sax. gan la. seen maam mii tax ñu oowee leen grand sëriñ kokki Issa Gueye gii la dëkk. kon da ngaa bëgg a wax Ablaye Makhtar Diop. mii grand sëriñ de Dakar actuellement du lébu. bu ko si doon sa pap sa yaay nga koy jëlee lébu bi. bu fekkente ne da ngay nekk ab sa yaay nga koy jële waaye du sa maam mu jóge woon kokki ñëw fii ñu jox ko kër utal ko tout teg ko parce que dafa jàngoon alxuraan nag loolu moom bu si kenn mer moo ñu dax seen maam moo daxoon jàng sunuy maam alxuraan si loolu si la mag ñi gis ne góor gi bu toogee fii amuñu problème mu alxuraan mais su demee nawet wala yooyu dañuy am problème si loolu si dañ ko maye benn maam sunu maam bu tudd Ngoone Mbengue Ngoone Mbengue dafa amoon boos mag ñi xalaatuñu doom si biir xalaatuñu dara ñu ma koy am doom dama ne réew mi ndëbbuntoo fi amul njariñ parce que ku nekk xam na ku ne ku nekk xam ne kii kii Ablaye grand sëriñ googu ngeen di wax yéen Sénégal seeni bopp ci boppam dama defane ne seen institution cathétique moo doxul parce que nit jaraaf kañ la am xam nga ko andee ah, gi wax yi nga gis ni mille quatre cent trente-deux la am xam nga kañ kañ la grand sëriñ am lii mën na nekk mille sept cent quatre euh, trente deux mille quatre cent trente deux lii nekk mille sept cent quatre quinze ngeen ne gan gi ñëwoon Ndakaaru moo ilif Ndakaaru waaye ndooy seetal li nga wax waaw léegi maam waaw man kañ maam dégg naa fi xam-xam parce que li ñu fi wax histoire la 1432 ak 1700 ku at yi ci topp sax ay siècle yu dul jeex la donc man loolu jàngee jàngee naa ci mais ku la dégg ni ngay waxee maam dafa mel ni yow nag da nga nangulul ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Makhtar Diop wala da ngeen am problème. nang amuñu problème fan. du question nangul cër il faut nit ki ko joxe. xam nga lii Abdoulaye Makhtar def loolu moo tax ma si nangoo sax génn di si wax ak yéen bëgg Sénégal ñëpp ànd mais man aw ma lu may bañ si Abdoulaye Makhtar Abdoulaye Makhtar tudde naa ko doom mu ngi fii si kër gi. léegi lan moo tax mu ñëw ba wakaam tàggu la. bu boo ñëwee ba wakaam man bu ma tàggu parce que boo seetee suma famille la xam nga ne papa si moom mais lii waroon mooy mu yónnee si garaafu wakaam yi laaj. wax ne dama bëggoon suma organisation bi may dox ma dox si si yéen ñëw ñu ñu seet seet nangam ñu seeti par exemple waa Nabila yi y' a pas de problème mais waxuñu ñun xamuñu te ñu tudd suñu tur dama lay laaj bu ne woon sàcc bi fi nekk fii euh, ñu jiiñ la ko ba ne yow la nangam nangam euh, doo wax ne du man léegi. Euh, soxlaaw nu pour ziari kenn toppatoo ñu lenn ñu bëgg a jël tànk utiliser ko foofu te duwaa tànk ñoo ñëw foofu mais seetlu leen ni ñuy def dañu bëggoon a def seen i programme am niñ ko doxalee doxale nañ ko noonu ñu nit am nañu droit pour leeral ne du tànk moo def loolu duwaa tànk. léegi maam boo léegi bi mbir yi amee. Euh, déggante ngeen wala ngeen gisante wala mu yónnee ndaw ci loolu bi événement bi rombee ba léegi. moom su ma gisoon léegi du ma ko nuyu. man bokk xanaa waxoo léegi sa mbokk la sa doom la. mbokk la mais mbokk bu fekkee dafay defee dégâts toog ko ngeen arrangé loolu mu demaat ba si biir mu defaatee dégâts noo koy def te bu fekkonte ne sunu biir famille mais lébu gi la tooñ. ah euh, lébu la parce que yaayam lébu la. mais dama la bëgg a xamal ne post bii mu yor du post bu tax Sénégal di ngaf nga fi di def def kenn xamul man li may xam naa ko bu baax te moom su boppam xam na jaraaf li muy wax xam na ko bu baax. non non non duma ko nuyu parce que nit ki pour nga wan ko ne que naa la noonu ngay def Ablaye bu ma soxlaa daf ma doon o bu ñu soxlante day oonte mais ñi mu àndal def coup bi ñooñu. laa awma benn affaire ak ñoom mooy cadre un boy wakam c'est kafar la loolu moo tax mu kii parce que et puis foog na ne ñooñu ñoo ko bu yóbbu fenn fi man dama bëgg pour que ñuy xalaat wax boobu ñu wax est-ce que ndakaaru dañ ma sa fal euh, dañ ne rek kenn du fi falu kenn du fi falu ab lébu rek a fi falu loolu du yàq réew mi masuloo dem Jurbel yow nokki loo fa ñetti nokki bokk dem nga Casamance dem nga fu ne mais kan moo foofu ku dul ña toog boo demee Fuuta waa Fuuta ko moom foofi dem ñoom ñoo ko moom ñoom ñii wax nii te ay cadre si ëpp cadre yooyu ñii servir nañ Sonacos ñuy dem nañu Casamance liggéey ñii dem nañ fu ne def lu ne mais ngoon ñooñu ñu doon fekk foofu ay waalal nañ Sénégal Sénégal la tudd de bu dee tur rek boo génnoon léegi ñu ne la sénégalais bi. waaw man ci loolu sax laa bëggoon a euh, dugal sama beneen laaj jot nga ko brosser muy wàlli Boddi Konte wala wàllu euh, li ñuy wax li tubaab di wax vote ethnique euh, parce que loolu lay xaw nurool nag yow loolu noo ko jàngatee. mais loolu moo indi suma coow li yëpp may màgg gémmiñ comme ça pour leeral nit ñi ne loolu warul xaw Sénégal parce que ñun ñoo ko fi dëkk def. même bu fekkonte ne kii la sax du lu ñuy teg ci ay rajo yi soleil ak ku ne muy doon affaire fii Sénégal ku ne xam nga sama morom boo may indiloon ab ab cadre euh, Dakar indil ma cadre bu jóge si région yi cadre bi dakk Dakar laay faral parce que ku am tibb bu rëy sa doom nga koy jox mais nag pour Kanta ñëw naan kay suñu candidat lébu gi masul def loolu ndooy ab lébu nga li ma lay wax boo demee nga laaj ka ku la neex xam nga lébu yi bu ma see fal pal yu mel noonu comme ni ma la mën a expliquer rek xam nga tey yaa ngi dem bay defe ne sax grand sëriñ moo ilif ndakaaru ilifu ñu ndakaaru waxuñu dëgg xam nga nan lay tëdd bu fekkee da am doom lébu def ne boo amee doom ñaari doom ñu nekk ci sa kër jabar sa kër ñaar ñu ñoo bokk ko bàyyi bu ñuy jàppante seetil ñu la atteel parce que kenn si yaay yi mën na wax ne moom day doomu diw la faral ndax dégg nga wax ji ma lébu ne bu fekkente ne ñun su dañ am problème bu fekkee que ñuy dimbali si kàttel ak leeral nañu seeti beneen jàmbur loolu moo waral sax grand sëriñ yi ngay dégg nii bu ñu amee problème moom ma say atte di grand sëriñ dañ doon jàpp ne seen premier grand sëriñ dañ doon gis ne doonta si diine la dina atte lu mu xam mais man dinaa wax tey benn wax te loolu ñu lébu yi daan def ma gis si wax ne euh, par exemple euh, ñu jël euh, ku fi dëkkul mooy gën sax mooy gën a taxaw parce que man jaraaf Youssou Ndoye ku ma waxoon ne ma ma àtte la ak Modou euh, Penda Dior kii si war a euh, kii ñuy war a jox dëgg kooku am dëgg mais keneen ki dañ koy yóbbu wala dañ koy rey wala dañ koy yóbbu si ay gaynde benn nit mën na wax a wax ba ma ne yow yaa am yaa am toor kële jox toor bi parce que bokkuma moom dara na ngoon booy atte da ngay taxaw si digg bi comme manuma maandu nekk si digg bi nag moo tax léegi dañ daan jël keneen teg ma di la wax ne diwooy faloog diw la bëgg loolu du bodokonte est-ce que loolu mooy yoon député yi nekk assemblée nationale di di wax lu jëm si lii euh, euh, di voté ay affaire si Ndakaarook yooyu bien que dinaa leen dégg sax léeg-léeg ñu def ay faute nga dégg ko naan way Ndakaaru yemul ah, safula Sénégal yemul Dakar cadre bu ma dégg loolu dama lay jàpp comme un cafard waaw mais Sénégal yemul Dakar mais boo koy waxee nii dafa mel da danga da ngay da ñaxtu man nga yor ni capital bi moo nekk nii te du rafet boo laataa dugg ay Diourbel ak yooyu di ko defar doo defar Dakar ba pare. waaw Dakar mais nañ defar fépp. amuñu lépp ay miskin lañu dun tous mboon lii état bi am di ko def si si ndakaaru bu taalee lampi ndakaaru ba pare na taal yeneen lampa yi. mooy ci boole ay xas nag. déedéet du as du xas parce que xam nga nit ki soo ko waxee dëgg benn dëkk dëgg neexul tey jii nga ñëw Sénégal yow mën ngaa yemee France. benn yoon nga nga nga nga mel ni France te ay heure la mooy bii France di football ak Sénégal nga dóor ko mais tey gii daw da nga mën nga wax ne fii ak France benn la bokkul yàlla moo bind te yemalewul d'accord nga ndakaaru andi fi capital bi moo waral man boog si ni koy gisee andi fi capital bi moo waral gars yi defar ko ba mu mel nii mais tey fi mu nii maa ngi d'accord pour que ñu yóbbu alal Ndakaaru ak Sénégal nañ ko boole yóbbu ko fële sa si biir région yi pour que région yi mel ni Dakar am déet loolu du xalaat sama xalaat laa wax. Sénégal nag yemul Dakar. mais loolu ñuy wax non ngoo dégguloo wax ju ñàkk fayda la ku ne xam nga loolu sa bopp. bañu ma ko mais dama la bëgg a xamal ne loolu. wax ko dafay nuyu wax bu salte sax Sénégal Sénégal nga wax waxloo Dakar nga ñëw nga ne yaa ngi toog assemblée nationale naan way fotolampe yi ñu def fii Sénégal waruñu ko def Dakar loolu wax bu baaxul la ay nit bu leen ñépp jéppee sama yaay nee ne bu nu jéppinte Sénégal ñun ñoo ko war a defar ñoo ko mën a defar d'accord nga ne man garaaf Youssou Ndoye maa defar ay ay yenn kii jàng sax su ma jàng CM2 ku yem CM2 lu mu mën a régler si Sénégal mais wakaam gi maa fi patron bi nag yàllaa ko def ñoom ñi war a ti ay lampaaki kii yooyu bu ñu ñiiroo man loolu lay bañ loolu moo indi ma ne au lieu que ñuy toog sub rajo naan euh, euh, kii la ñuy wateel waaye loolu jarul wax